Salam alaikum salam alaikum Sénégal salam alaikum Afrique salam alaikum Adina World Cup. Ambek mbég Banner bànneex ak est le numéro de club découverte Fego. sama càmmoñ sister Khadija kon mbokki ngeen Andak, ci sponsor officiel muy les fmf de établissement des de Frères salam alaikum Khadija salam alaikum

mbokk mi tur wi waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina wërngal képp maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Xaadim Géwël dëkk Thiès quartier Jaxaaw ñu gën maa xam ci borom Géwël Feeling maa ngi nuyu ñëpp daal waaw parce que Géwël Feeling Khadija mooy kan sax waaw. dama ne salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Thiès rawatina waa jaxaaw gu ma dëkk man maay fàllu man maay fàllu géwal di rek xaadim géwal kon suma ñëwé fi ni fuma jaar dina nuyu may nuyu ñëpp yeen ñëpp ñi fi nekk ci plateau yi di nuyu DJ Buzz di nuyu sister lepp ma leen nuyu di leen bëggé wa saa su ne incha ñi ñu dalal ñi seen groupe bi yeen nu mu tudd. ñu ñooy wa troupe ngeewal Feeling. ay mais lu tax Ngéwël Feeling yeen tam bon feeling ngeen am bay wax ay ngeewal Feeling ban feeling ngeen fi ci waaw feeling dañ ko juddu walé dañ ko juddu walé waaw feeling dañ ko juddu walé tamit euh, ñuy ñuy jouer. amoon mena am ménagère boo xam ne macha allah. muy Ousmane Daabo. kii nga tiim ak waa ak Daawdu Mbuub waa Cantaakun Couture ñoo leen di nuyu ñoom ñëpp di leen béggee ñoom ñi xaadim mii di tëyër ñoom ñëpp ñu ay tëyër bu ñu mosaan di dem di tëgg ji dañuy nduróole ñun ñëpp lu ñu sol bu ñu ko nduróole nduróole ay kabak lépp ñu nduróole ko fu ñu dem di tëgg ji ñuy gis logo boobu ci ñun ñëpp naan mais xale yi dañoo bëri fili xale yi fu ñuy tëgg fu ne dañu bëri filing xoolee fu ñuy tëgg fu ne yi géwël yi dañu bëri filing géwël yi dañu bëri filing ci la sunu ménagère ne konte ñoo ngi wax géwël yi dañu bëri filing nañ ko tourné def ko géwël filing parce que géwël yi dañu bëri filing loolu moo indi géwël filing yàlla def nag laaw la caat macha allah yàlla def sunu ménagère di def ba ñuy tourné fu ne macha allah ñoo ngi ñaan yàlla mu yokk nag saa ne <laughs> dama bëggoon a xam. comme ni ngeen di joué bongo yi dañoo gis que yeneen instrument musical yi foo nit yi dañuy dañuy accordé yéen comment vous faites pour ngeen accordé seen son yi yéen ñaan ngeen déggoo yan accord ngeen utiliser. waaw bëggoon naa ko xam. waaw ñun accord ñun lépp la ñuy joué ñun du bongo yi kese la ñuy joué ñun ay sabar tëkkat sabar lañ dañuy jouer musique di jouer bongo bongo yi yàlla da def. kon tey nit ku nekk ñaan nga yàlla di yokk dara xaadim sama mag soo gisee man may bongo xaadim moo ñu dugal ci bongo moom moo ne daa bëgg a yokk niveau bongo yi parce que bu ñëkk mun bongo maan yi dañuy taxawaalu di dem ay xew te duñ leen woolu bongo maan yi civilisé wuñu mu ne man dama fiy jëlee loolu tey indi fi leneen ma ne ko xaadim nan ngay def mu ne da damay damay moderniser bongo di sollu rafet bala maa dem programme dañ may woo fay ma cachet fay ma xaalis bu weex taal doog maa gis si programme bu yàggee ñooñu bu ñu yàggee gis loolu ni li may def bu yàggee dinañ mën a mel ni man loolu moo tax ñun ñuy joué bongo. si looloo tax ngeen di joué mais ba tey sama question dafa des. Ah. en fait dama bëgg a xam yéen ñaar. naka ngeen di déggoowee ba kii lu muy joué ànd ak yow li ngay joué. accord yooyu comme par exemple tey kuy joué guitare. Mm. dafa am ay notes yu muy joué yéen am na note da ngeen di juste si rythme boobu noonu loolu laa bëggoon xam. am na am na ndax ku ci nekk ak temps bi ngay jàpp xam nga gitaar gi bala moo ànd ak bala moo ànd ak batteur bi foo mu am ay not yu accordement yu muy joxe. pour mu doog ànd ak moom. mais ku ci nekk daa am sa perfection. gis nga moom gaam bi muy jàpp ak man gaam bi muy jàpp du boox ay notam lay joxe man ma dugg ma ma yor sama yoo xam loolu moo tax <laughs> waaw côté gaam yeeg yooyu yëpp maa ngi dégg fii ay euh, notu batteur beeg notu kii bi mhm. lii lan la ah, li li li ay ngacax la ngacax waaw euh, lii moo moo tudd ngacax parce que bu fekkee da ngay joué nii dama lay jox benn exemple tey su ma tegee nii ngacax yi mhm. ma joué fii doo ma dégg ngacax yi mooy mooy fëgg ci lekket bi pour nga mën a am son bi nga bëgg quoi pour ngay dégg kak kak kak gi parce que loxo dafa am yàpp quoi léegi gàncax gi bu dalee daa ngi dégg lii lañ ci soxla loolu loolu moo waral ñun ñuy tax gàncax yi quoi ah, <laughs> ko gàccax <laughs> waaw euh, rapport ak li ngeen di bongo yéen di yéen a koy defar. waaw maa ko defar.

bu ñu tiimee sabar ak yëpp bu ñu ci fooragul sax bu ñu la tiimee dina la wax ne bii war naa neex wala warta neex donc ci lekket yi par rapport ak lekket yi lekketu bongo dafa am tur ak lekket bu dul euh, joxe kii maanaam bu son bi baaxul it dafa am tur wala non la ah. mais waaw lu tax nga ne lekket la ba waaw lekket lekket la mais lekket yi bokkuñu waaw bu ñu tey da ngay gis da ngay wuy ma wuy xaalis lekket yi bu ñu bokkul dañoo war a am ay tur wala waaw xam nga Mm. tey bu fekkoon ni ci domaine bi nga xam ne man ci laa judd ci laa nàmp muy muy muy ay sabar mm-hmm. tey boo ma laajee ci sabar bant bii nu mu tudd loo ma laaj ci bant ma wax la ko ci laa judd ci laa moom laa nàmp da nga ko bongo bongo ndee so dee non du ma ne daf ma dab mm. mais sama papa tëggkat sabar la sama papa mës ta bëgg bongo mm-hmm. sama papa buur géwél ñëpp ko xam moom la njëkk a jëlee Sénégal yóbbu ko tournée international bitim réew mm-hmm. du Ndiaye Rose daawul gëj suñu kër saa yu ñëwee Thiès sama papa koy ba mu ñëwee bitim réew sama papa ko njëkk a dalal bitim réew. muy doomu ndayam kees. Hmm? waaw alaaji na ko suuf seen alaaji papa ñang ñëpp ko xam. waaw mu ngi hôpital tey dama ne waxoon Fallou sax mu ñëw. parce que mu dem ba maa ngi moom hôpital. papa waaw yàlla na yàlla fëgg boppam ak yàlla. waaw moom moom mooy loolu mais sama mag bi nekk Espagne actuellement yor fa bu mag vie. Hmm. kooku moo indi bungu suñu kër. Hmm. kooku moo doon joué bongo. te bongo boobu daf ko exporté tamit. moom waaw bongo bi bongo bi ma ngay toj bitim réew. <laughs> <laughs> bongo mi ngi toj bitim réew. Mhm. ay salle la fa yor. di jàngale fe di joxe ay cours. Mhm. xam nga yàlla na mën-mënam yokk. Mhm. mais leket ñun leket lañ ci xam. mais kon man. su ma tiimee leket bi dinaa xam leket bi baaxute bongo parce que dafa am leket yoo xam dañuy bëri cox. bu ñu bëree cox boo boo ko kiwee.

tay boko jëlone diko di ko bongo yaakaar naa ni boo toogee fii di ko tëgg kii sa wet fi mëno ko yakali na la moom xiifam xiif lay rek <laughs> waaw euh, de lan lan lay jël composition bi bongo waaw bongo di nga am tout d'abord leket boo amee leket nga am contreplaqué mais du n'importe quel contreplaqué tamit ma fay dem waaw Bi, man bi, man ko defee contreplaqué quatre mais quatre faible laa ko defee contre laa bi faible laa ko defee nga pare da ngay ut col force astafurla col blanc col blanc ut ay pont ah ut ay pines pour euh, mooy téye ci biir ut ay classe lii mooy classe lan mooy classe lii affaire boobu ci kaw ah, affaire bi ci kaw ut classe ut vis ut centre muy fer bi nekk ci biir centre ut lame

sànq kii mi ngi wax ne que ni da nga perfectionné pour changer rythme bongo maani comme ni ñu doon defee. Mm. léegi yéen nan naka ngeen koy défé waaw question boobu dina sawar répondre trop c'est ça xadi parce que man maa ngi ci ay projet ni pour que ah, ak bongo ni ma fexé def bongo en sorte que bongo dinañ ci brancher ay jaaj sonoriser ko muy jouer maa ngi pré maa ngi préparé tamit pour euh, ñuy jouer ay soirée en live yoo xam ne bongo lañ koy jouer parce que nag sabar moo nekk sama xol moom laa nàmp mhm. waaw te boo ma déggee ci sabar da nga naan ma xaadim bul bongooti mais nag bongo dama ko bëgg a yéggale foo xam ne waaw fu fu fu fu kawe la. maanaam wuy wuy mën a tase nañu ay ah. ay <laughs> programme waaw waaw mais gincax gi day juum tout le temps. <laughs> non kii ah. am ah. ma allah lawal ga dañuy teg foofu suñu baaraam dem seeti publicité ñëwaat mais ñii. macha allah. yi daal bëggoo dara sëngéem rek looy xalaat. maman jaaxle rek surprise laa la bëggoon defal waaye faux entrepreneur ak maçon yu xamul dara tas nañu sama yaakaar. sama nene surprise neex na lool waaye waxtaan ak ki xam day tax doo réer soo ma laajoon doo xuloog maçon ndax entreprise générale Faramendi et frère est basée à Thiès au quartier Nguent. Elle s'active dans la construction de travaux publics assainissement adduction d'eau, de distribution de tout matériaux. Tu veux construire une maison, un complexe scolaire, université, église, mosquée, magasin, laboratoire ou hôpital, choisis le partenaire idéal Faramendi et Frères qui fait de vous client et partenaire avec à sa tête M. Faramendi, soutenu par une équipe composée d'ingénieurs, de techniciens, d'experts financiers diplômés de grandes écoles, ayant une solide expérience en entreprise. L'entreprise générale Faramendi et Frères vous accompagne aussi dans la consultance, allant du diagnostic de bâtiments existants à la démarche administrative, demande de bail, autorisation de construire, étude de projet, conception de plan, ferraillage, coffrage circuit plomberie et électricité Tanak, lepp lu ngeen soxla ci matérielu construction disponible na ci Faramendi et Frères bépp projet bu la Faramendi et Frères réaliseel tek nako ci garantie fukki at kon nak, wool ma Faramendi et Frères ma jox len lepp lu jëm ci sama construction jëlal numéro yi 77 480 40 17 wala 78 145 25 26 wala nga consulter le site web faramendi construction tiret notre challenge traduire vos rêves en réalité Allez, merci chers téléspectateurs. Voilà, juste après la page publicitaire di am contentement ànd ak ñoom euh, ba ñoo partenaires sûr. ñi nga xamantene donc ñu ngi yëngu ci euh tabax walu jënd ak jaay muy terrain mo xam lu munti am muy les établissements Fara et Frères euh, mën ngeen dugg sen site web ngeen dal di visiter point Fara construction de btp alors ñu ngi yëngu ci walu également travaux publics assainissement adduction d'eau distribution tout matériaux te nak lima gëna neex ci ñom ñom lepp luy projet ñu réaliser lako dañ koy teg ci garantie fukki at déggoo ma de garantie fukki at avec leur challenge traduire vos rêves en réalité deug gee fi Club Africa Forever ba tay ci Club Découverte andak ak mbokk yi Khadija ñu ñëw ci ñaareelu patch wi nga xamantene donc mooy pàccu njeextal wi ànd ak sëñ Fallou ak khadim, seigne khadim nak euh <laughs> tey tey la tey tey la tey de man ne sama ñaari sëriñ si nga xamante ñu ngi ci bongo ah yow yow yow yow yow sëñ Xaadim lii kan nga ci tàmbali an bongo waaw man mën naa ne bongo nag yàgguma ci trop waaw parce que bongo maa ngi ko commencé 2010 2010 waaw mais eh, eh, eh, fukki at bari waaw mais suñu kër jigéen ñi sax dañ mën a ñëw bongo ah <laughs> suñu jigéen ñi sax dañuy fowantoo bongo waaw mm. daan naa toog nii ñuy waxtaan teg ataaya may jàpp bongo jàpp ay gaam mais dugg ci commencé parce que ah. <laughs> parce que xarisa boo gisee bongo man li ma ci duggloo mm-hmm. mooy loolu ñun waa Ngéwél fii ñu ñuy bëggee day daa bari te am ñenn ñoo xam ne sabar moo leen daaneel am ñoo xam bongo moo leen daaneel mm. am ñoo xam leneen leneen moo leen daaneel man de laajafal ay ni dañ may engagé sax ñoo xam ni booy dañuy ñëw gars yi dañuy ñëw jàpp gaam naan ay jàpp ci gaam may wax Ah. kon ay gars dañuy <laughs> jàpp ni ay gaam nit daf ma ci engagé di dem tukki wala lenn booy jàpp ay ay ay gaam ni ma ma ci ma ciy wax waaw ku ci ne ak li lay daaneel. léegi nag yooyu gars yi di joué waxal ci gaam gi ñëwal ci ci gaam gi ñëwal ci gaam gi balaa xarisa di ñëw ci laaj wi ñëwal ci gaam gi may ma ci gaam gi ci gaam gi nii ma wax ci waaw wax ci waaw ma pour ci es bi fii ñu joué ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ci dafa jàpp ci pour nga mën a joué lii faaw ñu so ay trade <laughs> ay trade kon ay gars yi ñuy répété <laughs> di ko joué ci américain yi non c'est très sérieux faaw ngay joué lu nice sol ay trade mën a fëgg ñu lay dégg mu naan kat kat kat kat gars yi di ci gars yi di ci kébétu di wax quoi moo tax ma naan ko Fallou addinaa naqare xam waaj yu naan la mënu koo xam li ci biiram fi la làq fiiram ci addiram ku nooy bopp da lay fiiram tay ma wax la li ci biiram addinaa nakar ne laaj ma booy lu tax booy lu tax xoolal réew mi nakar ne laaj ma booy lu tax xoolal booy lu tax xoolal boo xëyee amuloon ndekki kenn du la yërëm kenn du la yërëm boo jugee di góorgóorlu dañu lay xërëm ngir sentu dërëm ah. fàllu lu am nit la nit la lu baax nit la nit la et eh, lu bon nit la nit nit alal dana ko jaral mu jaay ngorom tay la doomam ba noppi yónni jëkkëram tey dëkkee suul ci këram ba fu mu toll ñu koy gërëm ngir seentu dërëm ah. am na ñoo xam ne jar ñu sax sant ba dineen leen gërëm te ku leen topp gërëm ndax lan dañoo ñimee xërëm yéen de mën ngeen ànd ak rappeurs yi li ngeen di def waaw sëñ Fall waaw léegi laa xam parce que sànq maa ngi mhm. Mhm. muy expliquer que ni da ngeen a bokk ci famille géwél waaw famille géwél bu mag. léegi bëgg naa ngeen wax ñu ci seen famille. ak mm-hmm. yéen lan moo leen poussé ba parce que gis nañ fi ay géwél yoo xamante ne. Mm-hmm. liggéeyuñu ci sabar liggéeyuñu ci bongo ñu dara. Mm-hmm. yéen lan moo leen incité à ngeen ne. ci géwél gi daal ci ngeen dox. waaw loolu laa bëggoon xam. waaw loolu dinaa ci sawar a tontu ndax olof da loo doonul lu ne day dëgër. te ñun dañoo nàmp ci ngéwél. awa numbey sama yaay ko xadi faye yaayam gite ma moori ta ma moori ma moori mbadum daam fal ku bojaan tax a jóg doyo sa di taxawàllu fal ku bojaan tax a jóg doyo sa kuur di taxawàllu waaw ah <laughs> man dama dégg ñu ne Mamori euh, Mamori Gite Mamori taw Mamori Mamori ah. mbadum daam ah. ndeela cobaan ma bàkkoon damel sa maam mooy sunu maam. waaw moom la tubaab ba dàqoo. <laughs> waaw <laughs> ah, ma xaw damel ci ngor la deewee. damel ci ngor la deewee ci ngor. ah dawul ba dawul non non. bañ na ko ba léegi sax waykat yi dañ koy woy naan damel bëgg naa la. waaw gis nga damel du ñaaw. <laughs> barki nabil barki nabil ba dee. waaw daa xaar bayee sunu maam daanaanu ndaanaani. bañ ne ba ndaanaan lañ ko tudd. ndaanaan koy wax ba tey. kookoy sunu maam Khady Faye ndaanaanu ndaanaani. mënti dem ci Sénégal soo nee Khady Faye ndaanaan. ñu jël la fat la. moom moom moom la Assane bu te ñun géwal ñun géwal dañu am lu riche loo xam ne ñun dañ koo war a fonk ñun. ñëw ci mooy. ci géwal kase mën a jugee tay dem ba Louga mhm. ne géwal laa xamoo fa kenn ne géwal laa diw mooy sama maam ñu dalal la seen kër te xamuñu la loolu am na foo dem feneen ne diw mooy sama maam doo géwal ci biti lan lay wax waaw attends kon bu demee kër géer ne kii sama kii la danañ ko dala déggoo li ma la wax <laughs> kër géer gu jógee ci kër ngéwal waaw dem muy Louga Bargny Tëngéej foo mënti dem ne man ah, géwél laa dem kër ngéwal ne man doomu géwél laa ñu jël la fat la. léegi boo demee kër géer nag. ah soo demee kër géer nag loolu xaw ma daan. Ah, xamuñu de loolu xaw ma li muy wax nii li muy wax nii dama la koy indi dama la ciy indil benn seede bu ndaw. parce que man secouriste laa waa Croix Rouge dañ ma fay jëlee yóbbu ma mission ba yàq mais bi ma fay wàcc timis maase na xaw ma poste bi fu mu nekk xaw ma fu ma war a dal. ma ñëw yegg si fa ak ak sama tenue ak sama saak ma ñëw xaw ma fu ma war a dal ma romb benn boutique ñu teg fa ay sabar nii. gars yi dugg ci boutique bi di jënd ma ñëw for for benn galañ ñëw xultu ci cóol bi ma xultu rek ñoom ñu daw génn yee eh, eh, kii tuyaay saa yow tëkkat nga est-ce que léegi ma ñoom ne leen dama fee ñëw xamaguma fu ma war a dal billaahi ñoom ñoo ma jël yóbbu ma seen kër ma fanaan fa ba bëset bu ñu xëyee seen raq bi yor kalandoo bi moo ma yóbbu ba poste bi fa mu nekk ma doog commencé sama liggéey. loolu ci ngéwél rek laa am. ngéwél kër. parce que kon daal kon daal mën nañ ne ngéwél. ku leen seentu ca gannaaw moo cee xale gis yéen a nga ca gannaaw waaw di xuus di xuus di xuus xuus woowu ñu ñëw ci <laughs> waaw euh, yéen ñi pratiquer am ngeen album wala yéen a ngi ci ay projet album parce que bi may xool man bi may dégg bongo ba tey mhm. yàgg na mais gisaguma man sama wàllu bopp euh, albumu bongo mooy pourquoi warul nekk yéen ci seen initiative yi quoi ndax bokku ci. ok hmm. man maa ngi ci préparé album ni maa ngi seize son. seize son hmm. bind. yow yaa ko bind. man Fall Ousmane Dabo ak Daado Mboub. xam nga loolu laa ko bind parce que Ousmane Dabo moo bind kàddu mag. Uh-huh. Ousmane Dabo moo bind kàddu mag. Mm-hmm. Daado Mboub moo bind son sa nawle. Hmm. Ah.

seize titres dont huit titres yëpp bongo kase laa ko mixé. loolu yàgg na bongo clavier. seize seize sons yi. Mhm. maanaam mën naa ne nu mu tudd deux mille dix neuf. Mhm. deux mille dix neuf na dix yi pare. Mhm. ma génn ci benn single. ma di single bi muy a la. macha allah single na ci ñëw na ci ñëw na ci ñëw <laughs> ñëwal ci single bi ñëwal ci single bi ñëwal ci single maa ngi naan ci jigéen a sañ seen i mooy neexi wax ci bañ a weex rafet rafet jikko am boppam xolal di togg tubaab tey rek ko ngeen ci aaway yëkkati ba ñu kawe ci ñaareel yi wàcce leen ba ñu suufe ñu kenn mer Sénégal bëggoo kenn mer ah, ñaareel seen mais mais ñaareel dafa xew de ñaareel dafa xew jamono yi barke Nabil Karim ñaareel dafa xew leen bëgg a laaj

waaw ndax seen groupe bi yéen mooy def njiit tey xaadim kii sama mag la maa topp ci moom muy sama mag boo xam ne muy sama mag boo xam ne yow yow mi yaa mag xaadim kii moo la mag waaw ñëpp dañ naan ma boo sa garab ñu naan sama grand la parce que booy bi dafa am oto te grand bi amagul oto. ah grand bi yorul booy bi daa barage am arobase la yor di ci doxantoo booy yor oto bu mu romb ñu ne ma sa sa sa grand bi romb may nu may def dama naan damay d'accord rek. Ah, grand bi tontu. waaw dégg nga moom xam nga day nekk sama yaral ma boppam man. su ma toxul naanu ma sàccu ma ci moom la ndax moom mooy sama idole man ci moom laay roy parce que moo ma jël xirtal ma ci boppam billaay walaay taalaay du tëdd ci lal te xool ndax man ñëw na xëy na damay génn dem liggéey ji nekk ci tali bi tërëral bi mais damay jékki-jékki sama téléphone sone mu ne allo waa mais Baye fan nga nekk ak Baye Fall ci lan nga nekk bañ na ba sa foo ko tourné man fu ma nitisee fu ne maa ngi nii xaarim bañ na ma sama jabar bu ñuy génn danaan yéen ñaar rek laa jéppee seex yi un deux ngeen def bingo bi seen petit combat nee na ñun petit combat lañu def ñun ñaar kase de <laughs> loolu lay wax seen petit combat tuddee ma bingo binga nee na foo gis ñun ñaar rek ay ànd may ñaan may ma ma koy ma koy ñaanal yàlla li mu bëgg ci aar yàlla ko yàlla defal yàlla yokkoo fu gën a kawee ci njootam xamam mu doon sama ma doon koo xam ne kontaan naa ci moom quoi barke yonent bi yaa na ko yàlla lafal cat. amiin lafal cat. Euh, man li ma bëggoon a xam ci gàttal rek ngeen may ñu ci xam naa dinañ jël ci temps bi tuuti. dinañ ci sàcc tuuti. Mhm. Euh, li ma bëggoon a xam. Mhm. yéen par rapport ak aar wi ngeen nekk nii. Mhm. ndax yéen a ngi ci. Euh, génn di ci dundal njaboot mm-hmm. am ay teranga. Mm-hmm. parce que naa léegi mu wax ni yow yor nga oto. Mm-hmm. la yor. ci liggéey boobu nga jëndee moto. yow ci aar wi nga jëndee oto wala. <laughs> non Fall loolu da nga may ma tontu ci. non da ma eh, may macha allah du dañoo tagg suñu bopp au passage maa ngi ciy nuyu suñu ménagère Ousmane Daouba.

ci tur bi lépp lu am si situation ci Thiès bu ñuy wax Ngéwél Feeling da ciy bokk ma ci sant yàlla fenn mooy bi ñu ñëwee fii nii di sélectionné group bi war a dem Mali dem joué ji fa Ngéwél Feeling lañ tànn ñoo dem Mali ñu jugee Mali bi ñëwee di tànn artiste bi war a dem Égypte man la yóbbu ma dem fa kon ñu ngi sant yàlla kon yow dama jógee Égypte ñëw jënd arobase. <laughs> non non aro ah, non arobase yi programme yi rek mën na maa may arobase man géer lu nekk la may defal. parce que yàlla def na ni nag fu may dem da nga may woo da nga may engagé fay ma ma wax ak yow nga wax ak suñu ménagère ñu dem jouer la. Mhm. du ma taxawaalu ci kenn. sànq maa ngi wax ci benn taas bi naan ku bojjaan tax a jóg doo yor sa cour di taxawaalu man amuma jot yi su ma xëyee atelier laay jubal xëy ñu toog ñun ñett ñii Daouda Mbow Ousmane ñoo bokk atelier. ku ñëw te ñun ñi ku nekk da ngaa yoroon sa atelier bopp mais bi ñuy toogee kon te ñoo bokk batterie bokk troupe di ànd guddeeg bëccëg ñu ne nañ boole machine yëpp ndax mbooloo mooy doole ibbi atelier bu mag ku ñëw ba caale arrêt bis bi bis un bi boo ñëwee Tiantakon Couture di nga xam ne lépp dëgg la ndax lu ñu sol ñun ñoo ko ñaaw loolu am na waaw léegi li nga li nga laaj ni ndax euh, ñu ngi ciy dundal suñu njaboot ñu ngi sant yàlla bu baax amul loo xam ne ah man xaadim loo xam sama nawle artiste am na ko te aw ko ma ma ñee ko. macha allah waaw maa ngi ci sant yàlla ma ngi ci am lu ne. daal waaw sant yàlla bu wér. macha allah. Euh, oto ba. <laughs> Ah, maa ngi sant yàlla bu wér ndax oto bi moom du <laughs> percussion yi ñoo ko jënd hmm. parce que oto buy jar ay <laughs> millions moom. Jakarta waaw surtout nag. may lancer wale benn message pour jagartaay ndax hmm. gars yi nañ dawal yërmande quoi parce que li ay de sàmm way yërmande ci doomu jàmbur ku ci nekk nañ ko gis sa bopp da ngay xool bu doon yow ndax jagartaay bi tey dafa metti da yor jabar yor doom yor papa yor yaay di fay location man sama benn sama côté ma ngi sant yàlla ndax suñu kër laa dëkk sama papa liggéeyal na ma kër ba ma mën a cee tëdd. is dégg mais am na ñoo xam ne dañuy fay location ndox courant war leen añ reer war leen ci seen njaboot amuñu lu dul jakarta mais nag am nañu ñu koy yàq xoolal loolu émission waaw bi moom boobu émission non mais mais liggéey boo gis am na ñu koy salteel waaw mais nañu nañu dimbali ngir yàlla may lancer message nañ jàppale borom jakarta te dawal yërmande ci ñoom léegi comme euh, li ñu tëraloon ci waxtu wi euh, xoj nañu Khadija xam naa nag euh, li olof Njaay di naan rek euh, lu duuf ci. nag bi nag bi xajul ci cin gi. waaw waxoon naa leen ko dinañ ci am large page ngeen indi instruments yi hmm. indi groupe bi. ngeen hmm. ñëw ñu laaj ba mu saf saf. Hmm. muy Thiès sur scène. jërëjëf ma andi ceeb Khadija. ñu am benn takkusaan. wan waa Thiès. yeneen ñan. xam nañ leen. gën leen woon nag seen talent ndax xam yi ngeen denc ëpp li ngeen génn. waaw barke yéen barke yéen ñu dara. donc seen euh, dernier mot lu ngeen di tàggatoo ak bongo yi wala. waaw bongo la ñuy bongo la ñuy tàggatoo mais ba la ñuy tàggatoo may gërëm Ndeye Coumba borom Canada. Mm-hmm. suñ jigéen suñu xarit. sama yaay di gërëm sama yaay a Ndoumbe. waaw xam nga di gërëm 100 pour cent Géwal Feeling yi. yéen ñun bu ñuy sonn yéen a tax. Mhm. ak Xaadim Géwal famille fàttewuma leen. <laughs> waaw waa HLM waaw. fàtte ñu leen di gërëm sama waa Kër Tanta. waaw ñoom Daouda Niang ñoom Mouy Niang. ak sama jabar ya fa nekk yëpp. waaw leen nuyu di leen gërëm. di bé di béggee daal ñëpp daal ñëpp ñoo <laughs> sa baaram. parce que yéen ñuy gunge ñu demaale Khadija ñu bàyyi ko mu tàggatoo. waaw uh-huh. ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon di leen remercier aussi Fallou. Mm. ak euh, Khadim. Mm. merci. merci merci Khadija merci Fallou. merci Seigne Khadim. Mm. merci encore Ngewel Feeling. merci également toute l'équipe euh, de Club Africa ñom ñi nga xamante vraiment am nañ fi ay jinne am nañ fi lu né <laughs> ñu ngi fi vraiment car machallah label bengok nak mën ngeen fé jaar lépp lu ngeen soxla ci walu événementiel bagage yee ngi fi yéna ko mom toute l'Afrique, on vous appelle. Aïka. remercier aussi sponsor officiel Mouy les établissements formés des Frères rendez-vous le plus tôt possible toujours dans Clap Découverte DJ Buzz l'international en featuring avec Sister Khadija DJ Buzz vídeo do yi daal bégoo dara sëngéem rek looy xalaat maman jaaxle rek surprise la la bëggoon defal waaye faux entrepreneur ak maçon yu xamul dara tas nañu sama yaakaar. sama nene surprise neex na lool waaye waxtaan ak ki xam day tax doo réer soo ma maçon ndax entreprise générale Faramendi et frères est basée à Thiès au quartier Nguent. Elle s'active dans la construction de travaux publics, assainissement, adduction d'eau, de distribution de tout matériaux. Tu veux construire une maison un complexe scolaire, université, église, mosquée, magasin, laboratoire ou hôpital, choisis le partenaire idéal Faramendi et Frères qui fait de vous client et partenaire. Avec à sa tête Monsieur Faramendi, soutenu par une équipe composée d'ingénieurs, de techniciens, d'experts financiers diplômés de grandes écoles ayant une solide expérience en entreprise. L'entreprise générale Faramendi et Frères vous accompagne aussi dans la consultance, allant du diagnostic de bâtiments existants à la démarche administrative, demande de bail, autorisation de construire, étude de projet, conception de plans, ferraillage, coffrage, circuit plomberie et électricité Tanak, nag lépp lu ngeen soxla ci de construction disponible na ci Faramendi et Frères bépp projet bu la Faramendi et Frères réaliser tek nako ci garantie fukki at kon nak, wool ma Faramendi et Frères ma jox len lépp lu jëm ci sama construction jëlal numéro yi 77 480 40 17 wala 78 145 25 26 wala nga consulter le site web Faramendi construction btpsn notre challenge traduire vos rêves en réalité